Josette Kali. Il est 0 heure et nous sommes jeudi le 15 juillet 2021, l'heure du bulletin d'information. Ce le corps d'un homme âgé de 70 ans a été découvert dans sa chambre à la, à la le euh, Paul Seigneur euh, près euh, du marché central de Kaolack. Le corps sans vie de cet ex-agent de l'ISRA a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji de Kaolack. La police a ouvert une enquête qui suit son cours. Mamadou Camara. Le corps sans vie d'un homme âgé de ans a été découvert dans une chambre à la rue Paul Seigné qui se situe à quelques encablures du marché central de Kaolack. Aliou Seck au caniveau de Gaulle témoigne le défunt qu'il a connu il y a de cela une vingtaine d'années. Il faisait le métier de gardiennage. son copain. Il venait le voir, qui nous a dit qu'il est venez voir comment porte Diop. On est venu, on l'a trouvé vraiment bizarrement. On a appelé les sapeurs-pompiers. Au moment où l'ISRA était au marché, son travail uniquement, garder, se coucher. Il avait de très bonnes relations avec tout le monde. Il avait à l'intérieur. Lui qui a créé sa domicile là. Moi, je l'ai vu avant-hier, mais il y a des gens qui l'ont vu hier. il était bien portant, il, marchait avec alertés, les éléments de la police judiciaire du commissariat central de Kaolack se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Et le corps sans vie du défunt préposé à la sécurité a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional et la Ibrahima Niass de Kaolack. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Remise de 129 tracteurs et motoculteurs au producteurs des 14 régions du Sénégal. L'État avec ses partenaires a débloqué 5 milliards 200 millions pour l'équipement rural afin de sortir de l'agriculture vivrière vers l'agrobusiness. Le président de la République, Macky Sall, a procédé à la remise des équipements cet après-midi. Écoutons à ce propos Amadou Moustapha Dian. région, le président Macky Sall a procédé à la cérémonie de remise de tracteurs et de motoculteurs aux GIE et autres associations de producteurs. Une enveloppe d'un peu plus de 5 milliards a été débloquée par l'État par et ses partenaires pour l'acquisition d'une centaine d'unités de tracteurs et de motoculteurs. Président de la République, le président Macky Sall, après avoir lui-même conduit un tracteur, a procédé à la remise des clés aux bénéficiaires. Nous avons pu mobiliser 5 milliards 200. Ces ressources permettront en partie de soutenir 100 bénéficiaires ici présents répartis entre des fédérations paysannes des coopératives et groupements d'intérêt économique qui pourront chacun disposer d'un tracteur neuf équipé. Le reste soit 1 milliard 200 millions mobilisés par la DER/FJ sera affecté au renouvellement de petits matériels agricoles au profit de 600 petits producteurs. Des programmes d'équipement financés par plusieurs partenaires et collaborateurs de l'État du Sénégal avec l'implication de la dr qui fait de l'agrobusiness et de l'entrepreneuriat agricole l'un de ses leviers pour mieux accompagner les femmes et les jeunes. Pour la campagne agricole en vue en 2021, l'ADER a mis en place une de crédit de 15 milliards pour la filière anacarde, en plus de 3 milliards pour l'achat d'engrais et de semences. De plus, au soutien de la Banque africaine de développement, nous avons acquis 29 tracteurs et 67 motoculteurs multifonctionnels dans le cadre du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur. Justement, Sall est longuement revenu sur les projets et programmes menés par le gouvernement du Sénégal pour passer de l'agriculture familiale et vivrière à l'agrobusiness. Plan national de renforcement du dialogue social, le Haut Conseil du dialogue social réunit les acteurs pour sa 23e assemblée plénière consacré au partage du projet de plan national de renforcement du dialogue social. L'occasion pour la présidente de l'institution d'exhorter les acteurs du dialogue social à capitaliser les diverses expériences engrangées au cours des dernières années afin de jouer partition dans la mise en œuvre de ce plan. Innocence Ntab Ndiaye que nous écoutons au micro de Moustapha Sall. Il nous a demandé au Haut Conseil du dialogue social, en relation avec le ministère du Travail, de lui soumettre un plan national de renforcement du dialogue social. Nous ne pouvons que saisir cette occasion pour mettre en œuvre tout le plan que nous-mêmes, nous, avons au cours de ces années de, de fonctionnement de l'institution, estimé que pour le dialogue social, pour le dialogue social soit une méthode de travail du gouvernement, comme le dit le chef de l'État, pour que le le dialogue social soit un instrument de gouvernance, euh, véritablement, le chef de l'État, nous devons travailler à lui soumettre ce plan. il y a eu une procédure d'élaboration, la mise en place d'un comité technique au sein duquel le Haut Conseil est représenté à côté du groupe des employeurs et à côté des travailleurs avec euh, euh, l'accompagnement du BIT et nous avons pu élaborer un projet de plan. Seulement, dans le comité technique, nous n'avions que deux représentants. Et au cours des travaux que nous avons tenus ici avec le ministère du Travail et le BIT, nous avions 12 représentants. Pour que les autres membres qui n'ont pas pris, pris part aux travaux s'approprient justement le projet de plan, il nous est demandé par le règlement intérieur de l'institution que cette question soit portée à la connaissance de l'Assemblée plénière. Et comme vous avez vu, comme nous le faisons dans toutes nos sessions, nous avons procédé à l'appel nominatif de nos membres nous avons, fait, nous constaté que le quorum était atteint pour tenir une bonne réunion, parce que si nous ne le faisons pas demain, un conseiller ou un groupe de conseillers peuvent dire que ce plan n'a pas été partagé. Or, le plan, nous le voulons, de, euh, dialogue social inclusif. Et à ce titre, nous-mêmes, le Haut Conseil, nous avons rencontré et les secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives et les moins représentatives. Parce que si nous euh, et des contours euh, nationaux, comme on dit, avec tous les acteurs, il faut que la démarche soit inclusive. Josette Kali. dal leen jàmm ci xibaar yu yemamaay yi yemook alxames fukki fan ak juróom ci weeru juillet dañu koy dore nag ci àllarba gi nag ñu fekk ab góor boo xamante ni am na lu toll ci juróom-ñaar fukki at mu ñàkk bakkanam ca néegam ci rue Paul Ségné foofe dende ak marché central bu nekkee ca Kaolack moom mi ñàkk moom mi génn àdduna nag mu nekkoon na vigile ca ISRA nag néewam mu nga ño denc Euh, ca centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass noonee sax police ubbi si ab l'enquête leeral yi ak Mamadou Camara. ci Kaolack alarba bi ci ngoon néewu benn góor goo xam ne gi war na toll ci juróom-ñaar fukki at wala lu ko ëpp moom lañ fekk ci benn néeg ci rue Paul Sagné nekk ci wetu marché central bu Kaolack Aliou Seck moom nekk ci caniveau de Gaulle di ci indi ay seede. Aliou Seck la tudd fii laa nekk waaw fii laa nekk ci marché fii rue Paul Sagné central moom am na vingt ans daal bi ñu miinanteeg moom fii parce que boobu ISRA moo ne woon fii mu nekk fi comme gardien boobu ba léegi nag ba fi ISRA jógee ba léegi it mi ngi fi place yu bari fii daf ciy nekk di garder gars yi di koy jox dara par fin du mois bu garder waan ba bët set day tëdd nelaw bu yeewoo vers seize heures jël vélo pédalam outing ñëw génnaat bu dix-huit mu génn jubluwaat ci liggéeyam waaw comme dañ ko doon gis bis bu nekk rek fii ñu toog deux jours yi vraiment génnut am ñoo xam ne ñii ay xaritam lañ woon ñu dem di ko seeti ki ñu ki ñu yox wax sax ne gaañu dafa ñëw seet ko ci onze heures wax ak moom mais état bi mu ko gis critique bi mu ñëwee toogaat ba ay vers quinze heures mu ne mi ngi delluwaat seetaat ko bi mu demee seeti ko la ko fekk mu nekk ci état boobu waaw après nag ci la ñëw ñu wax ñu ne ñu kaay leen xool Pa Diop bi mu nekk ci la ñëw gis état bi bizarre ñu daal di au sapeurs-pompiers xam naa normalement ay soixante-dix ans waa jëm kaw soixante-dix yi daal du manqué moom day ëpp suba gi boo ko gis sax day nelaw mais à partir de 16 heures lay commencé génn moom daal liggéeyam ci lañ ko xam bokk. Adama Ndiaye moom it xarit la woon ci góor googu la lii la ca wax. yàllaa koy bu ay wax. moom nan la ñëwee fii kaw. waaw loolu liggéey. waaw moom waa Tamba la. turam dëgg lan la. Aliou Badara Diop. ñëw fii naagulaalu moom ISRA bi tase fee. laa xamante moom. makaam mi ma ma ko sax man néew ma dugg ci réew bi sax xool ko ni xol bi dafa fees. sama du rati juma waxtu daal du ko rati moom ñaata at mi ngi fii 1970 daal dama xool la ñëwoon fii waaw 70 loolu wax na ma loolu nekk baa nga noonu boo dugg ci biir da ngay gis néeg bi da ko abal rek xam naa kon bi yëpp xam nañu ko biñ ko yëgalee police alkaati ñëw nañ fa daal di def constat bi laataa néewu góor googu sapeur pompier yi di ko yóbbu ci morgue hôpital bu Kaolack Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mamadou kamara lu toll nag ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay tracteur ak ay motoculteur moom la ñu jébbal producteur yu bàyyeekoo ci fukk ak ñeenti région yu Sénégal yi yëpp état bu Sénégal ci lëkkaloom ak yenn ci ay partenaire am nag génne na lu toll si juróomi milliard lu ëpp juróomi milliard nag ngir jàppale leen ci wàllum équipement rural googee bëgg bi bëgg bi mooy ñu jóge ci agriculture vivrière dem nag nag ca agro business eh, ci àllarba gi ci ngoon nag la réew mi Macky Sall doon leen jébbal yooyee caabi Amadou Moustapha Dieng. alors ay caabi yu mag a mag ngir symboliser caabi nga xam ne président Macky Sall doon na ko jox ni ki tey. fukk ak ñeenti nit yu teewaloon fukk ak ñeenti région yu réew Sénégal di ay producteurs yoo xam ne jot nañu ci ay tracteurs ak ay motoculteur ngir yombal seeni mbay koppar gi ñu ci dugal nag mu ngi toll kii juróom milliard ak lu teg ngir jënd lu toll ci téeméeri motoculteur ak ay tracteur ngir jëbal ko baykat yi lee président de la dawal naa tracteur bi tey président Macky ci boppam ginnaaw bi mu yégee ci benn tracteur daal dawal bi mu wàccee nag la jébbal caabi yi te di leen boole ak kàddu yi lee kon tey nag dañu ñëwaat toujours rek ci nañu taxawee woon indi fi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay tracteur yoo xam ni dana yokk seen liggéey yéen ñu yor groupement yi yor coopérative yi ngir la ngeen doon béy ngeen mën ko yaatal mën ko fulandi bu baax a baax andi aussi ay motoculteurs yoo xam ne d'abord suñu partenaire extérieur bu ñu muy banque africaine de développement di desoon ci projet bi jënd si ñaar fukki tracteur ak juróom-ñaar ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay motoculteurs. wala bi ñu joxoon ak fa ñu bëgg a yegg ci mbéy mi nga mën a am suuf boo béyee. mën a matériel boo liggéeyee loolu mooy gis-gis bu bees bi nga xam ni moom laa bëgg ñu doxal ci Sénégal programme d'équipement bi la nga xam ne nguur gi moo ko financé ànd ak ay partenaire am doon nañ ci ràññee bu baax taxawaayu deer bi nga xam ne jamono jilee dugal na bu baax loxoom ci wàllu agro business ak entrepreneuriat agricole daare ko ci gunge jigéen ñi ak ndaw ñi. kon mel na nu DER yematu rek ci ndaw ñi ak jigéen ñi waaye dugal na loxoom bu baax a baax ci mbéy mi loolu lii ci la tey téeméeri tracteur am na yeneen yu ñëw fukki milliards ak juróom jëm ci wàllu anacarde muy darkase waaye itam yeneen ñetti milliards yoo xam ne ci wàllu semence moom la ñu def pour accompagner les jeunes et les femmes producteurs président Macky Sall doon fàttali ci kanamu baykat yi programme ak projet yu am solo yi nga xam ne nguuru Sénégal doon na ko jël ngir soqali mbay mi daal koy jëlee ci bay dundee daal di koy yóbbu ci lu ñu agro business maanaam bay di jaay di jëriñu di si am koppar. ab plan national buy dooleel nag lépp lu jëm ci dialogue social tax na ba ñu dajalee ñëpp ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci boobe kuréel nag mu yemoo ak ñaar fukk ak ñetteelu assamble plénière bi ngir ñu gën a gëstu nag lépp loo xamante ni dafa laaleeg seen liggéey ci noonee sax kii di présidente bu boobee institution nag di sàkku ci acteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci wàllum dialogue social lu ñu jël lépp lu ñu am ci xam-xam ci at yi ñu weesu gën kaa ba jàmm ak lëkkale ñi nga xamante ni nag euh, dañoo déggoowul mu gën di jëm kanam ci réew mi ñu teewlu kii di Innocence Ntab Ndiaye ci micro Moustapha Sall. au conseil dafa am dafa am ay textes yoo xam ne moo ko tënk ñun dañu nekk ci liggéey boo xam ne chef de l'État excellence monsieur Macky moo ñu ko laaj laaj ñu ko ak ministère du travail mu ne dañ ko jox benn plan national de renforcement di dialogue social bi mu koy wax nag dafa fekk ñun ñu jox ko sunu rapport le 30 avril bi ñu ko ko joxee si ëllëg sa centrale syndicale yi ñëw joxe seen cahier de doléance bi ñu ko joxee nag le 5 mai mu ne moom li mu bëgg mooy dialogue sociale mu nekk une méthode de travail di gouvernement ba pare mu ne nañ ko soumettre plan plan boobu plan boobu ñun ak ministère du travail bay tey jàppale ñu ñu mettre en place benn kuréel boo xam ne mooy liggéey loolu mais ci kuréel boobu ñun ñu ngi ci am ñaari nit ñu yoo xam ne ñoo ni représenté di secrétaire exécutif ak suñu expert en dialogue social bi ñu demee ba ci biir ñu ñëw fii Saly ñu partagé projet plan bi ñu ko partagé aussi maanaam fukki conseiller ñoo ñëw fekkee réunion boobu parce que dafa am yeneen kuréel yu doon bokk te ñëpp munuñu woon ñëw mais ñun dafa am texte yoo xam ne moo ñu tënk pour que plan bi bu ëllëgee kenn du ne parce que ku fi toog rek am na koo fi toogal organisation boo fi toogal bu dee loolu yëpp fekkee woo ko bu ëllëgee mën nga ne man plan bi li ñu ci bind man engagé wu ndax man bu ñu koy def fekkee wu ma kenn woowu ma kenn laaju looloo tax ma ne dama bëgg ñu respecter euh, réglement intérieur bi ñu def ko session bu ñu ko defee session plan boobu bi nga xam ne am na ñu ñu fa toogaloon ñu ñu partagé ko entre ñun bu ñu amee lu ñu ciy gis-gis aussi ñu def si suñu ay observation door a dem ci ministère bi walaa ñu koy joxe parce que bu ñu ko joxee président rek moo si mën a wax euh, lu mu ciy jàpp ak lu mu siy wàññi ak lu mu siy changé loolu moo waral session bi Josette Kali fii la ñuy ndappe ndar keppe xibaar yu yëmamaay yi jaajëfal naa leen ci déglu bi jaajëfal it Pape Lay Dieye mi nekkoon na si xarala gi way leen di safoo programme Sud FM seen rajo léegi-léegi Sidi Gueye dina ma wuutu ci micro bi ngir seen émission tàlleen lamp yi